Cheikh Issa Diène waaw waaw loolu moo xam suñu ablatif hmm. euh, moo si joxe ndigal hmm. xam naa dafay des rek si kàddu ñaari minute wala benn soññee rek ngir hmm. ñi gën cee taxaw liggéey yi nga xam ne mag ñi bàyyi nañ ko fi ñu ko am ñu taxaw ngir bëgg a muur loolu te mënut a muur mënut a am ci àddina ñi si nag yàlla kàttan na leen ak soññi leen mënut a am ci àddina mënut a maanaam maanaam maanaam li yéen li ngeen di def dafa mat a taxaw mat a góorgóorlu waxuma la ñu bokk ci Cheikh Issa waxuma la yéen ñi nga xam ne Cheikh Cheikh Issa ngeen waaye ku yaakaar Cheikh Issa ak foo ko mën a yaakaare yëmuti ci ñu yaakaar Cheikh Issa mooy ku yaakaar Sëñ Tuubaa ak foo ko a yaakaare da nga am ci Cheikh isaa cër boo xam ni lépp lu ñu tudd Cheikh Issa rek war nga caa rayante sa bopp jëfte ci taxawaay taxawaay bu mat sëkk ba tax na lii ngeen sos muy mbooloo mii dafa war a dëgër war a wii ndax yéen ku leen xam xam ci jëf jonte ki wax la xam ku xam xam ne ci wéy ci ndigalul sëñ Tuubaa la ngeen xam ku leen xam xam ni seen wenn ñaq wuy génn liggéey sëñ Tuubaa amut ci kaw suuf te loolu ñëpp mën nañ ko seede kon nag na ngeen góorgóorlu ay ndaw ngeen te taxawaay yii lépp dana rafet ndax ñun xam nañ ci lu bari yow mii sa baay boobu di sëñ Cheikh Sourang sëñ Abdou Sourang xam nañ leen ci sëñ Bara Diallo moo daal leen yónni Cheikh Abdou Lahad ci lu baree baree bare loo xam ni lammiñ mun walaal ci yëfi biir am na ci loo xam ni dañ ko dul sañ a wax waaye noonu daal sant nan gërëm nañ ci li ngeen nu ci boole ndax yàlla dafa def noomu cofeel Cheikh Issa cofeel gu dëggu ci noonu te loolu nag xam diggam ak sëñ Touba xam te ko sëñ Touba tegoon loolu moo ko waraloon